Euh, ñu ngi leen nuyu mbokk internet yi euh, tey jii nag ñu fas yéene sekk ak waxtaan ak euh, Ngalla Sylla bu ñu nee Ngalla nag Euh, seen xel dina dem ci but soccer rawatina équipe nationale bi soccer bi nga xamné ne euh, bërki démb la ñu jógee euh, coupe du monde boobu doon am fofé ci Paraguay Sénégal nak nam sax ci quart de finale yi la ñu yem waaye boo xoolee compétition bi yépp ñu ngi jël sixième teg si nak am lolu ñu nane prix du fair play donc ñu fas waxtaan ak mom ñëwaat touti ci parcours bi nga xamné ne yi def nañ ko waaye itam lan mo tax depuis pratiquement cette participation Sénégal bu légui mënul fexé ba jàll lolu di quart quart de finale yi dinañ waxtaan itam euh, ci situation bi soccer fi ci Sénégal euh, développement bi fu mu toll infrastructure yi euh, yenn jafé jafé yi lañuy faral di jankontel donc coach ñu lay nuyu di la masawu ci voyage bi ngeen joggé jé nañ denn tournoi bo xam ne c'est un tournoi aussi majeur donc ñu tombé woon ci tay ci ben grand Portugal go xamante tay mo ñu daan 4-2 mais regretté wuñu ci yu bari parce que ki la daan bu fekkee ne moom moo jël compétition day wane ne rek moom dafa amoon doole ju bëree bari tamit donc parcours si loolu sax ñu ngi leen jaajëfal. premier match Sénégal ngeen dajeeg Russie xam nañ Russie kàngaam euh, la euh, ci euh, bisu soccer deuxième mondial bu dee jumuma match bi serré 8-7. est-ce que am ngeen déception ci match boobu parce que li ñu gis ne mooy pratiquement Lyon yi mënoon nañ ko gagné keroog wa vraiment match boobu defe naa amoon regret bu baax mais tamit sant yàlla parce que défaite boobu defe naa moo defar le tournoi parce que bon xoolee même bi ñu défaite bi sax daanaka bi ñu deuxième journée troisième journée bi bi ñu dafa ni euh, les boules euh, dañ ko remettre à zéro parce que daanaka ñun bi ñuy terminé sax ça nous phase poule yi Sénégal moo daanaka moo jël paie à toppa nous ginnaaw donc même malgré avec cette défaite là donc vraiment ñun sax après fexe nañ ba deewoo ba jël ba jël parce que Russie si diggante bi émirats arabe de ko mais loolu day firnde ne ne woon se si poule C boo xamante ne moom la doon wax de la mort. bu ñu ñëwaatee seen match contre Russie Nous prenons nañ Russie équipe bu mag la deuxième sur le plan mondial jël deux fois jël deux fois coupe du monde donc ñun tey bu Nous ñëwee disons wax moom mu daan si daan bo xamante ne sax ñun tay buñ si revenir sur le plan tactique Russie euh, débuté nañu marqué ñu ay donc dougal ñu 3 bi yo xamanteni ñun double bi métti woon na te Bichkek booy def ay effort pour double day metti trop. Euh, deuxième match bi contre euh, Bélarussie ñu gis benen Sénégal benen xar kanam est-ce que fofu ay ajustement tactique euh, ngeen fa indi wala juste discours bi mo changé. waaw ñaar yëpp changé na bo xolé sax surtout sur le plan tactique parce que dañ doon pesser sur les balles arrêtées bo xolé bi ñu jël yëpp contre la Russie. bo xolé du ay bi yo xam dañu sur le plan tactique dañu ko jé dougal ñu ko ñu am problème taxaway non non mais ay problème marquage sur le plan défensif sur le plan défensif gis est ne touche xalé yi dañ ci doon parce dafa am ben système bu génn ren muy système blocage bo xamantene bon lolu aussi ala lo xam dañ kay joytu parce que man symposium yi du ma si dem en tant qu'entraîneur international nga wara dem fekkante say njogo muy am. lan mo waral lolu bu dee mën nañu insister fofu waaw mais lolu bo gisee li ko waral mooy par exemple Sénégal biñ leen yónnee le document peut-être euh, jotuñu ko à temps pour que entraîneur yi fofu lañu dem waxtané taxawaay yeex nan lañu ñuy yoy nak ay ay ay jangat la yo xamante da ngay continuer di jang yow entraîneur mais bu fekké da nga toog sa rew rek wala di jouer ay matchs amicaux loolu aussi dafa bokka man sa bind naa ko sama rapport ne entraîneur mom bu bëggee ñuy pallier il faut que muy dem di fekk dajé def ay stage di bokk ak moroom entraîneur mi bu ko defee parce que man loolu bokkon na tay du ma reconnaître ne man liggéeyuma ko ak sama ak xale yi alors comme ni ngeen ko déggee le coach Ngalla Sylla yaakaar naa ne léegi li mu retracé léegi en tout cas li mu du doigt léegi lu am solo la maanaam peut-être benn déficit bi nga xam ne euh, xawoon na manqué tuuti ci staff bi en terme de formation notamment ci règlement yu bees yi nga xam ne am na ci biir soccer bi euh, est-ce que kon da ngay xaw peut-être rejoindre ñuy wax ni euh, tactiquement wala ci yenn aspect yi bi su soccer Sénégal peut-être am na yenn yenn effort yoo xam ne war nañ ko rattraper par rapport à ce qui se fait au niveau mondial waaw bien sûr bien sûr loolu dañuy day day parce que un travail n'est jamais parfait tey même Portugal gi nga xamante ne tey moom moo jël tournoi bi am na ay fa yu muy am malgré que moom moo jël coupe du Brésil gis nañ leen ak un grand championnat bu ñu am seen dëkk te tey dañ leen éliminé en en quart de finale mooy li may wax rek affaire bi du benn télécommande booy ñëw di ko rek ne voilà demi-finale laa jëm fa laa jëm ala liggéey la boo xamante ne il faut que gars planifier sur le temps man maa ngi sant yàlla équipe bi ma ko jëlee ba léegi Afrique je touche du bois amaguma fi défaite en Europe defet yi dañ koy wàññi daanaka juróomi defet la si nombre de matchs yo 24 matchs donc le sante yalla la groupe pour deux ans donc le projet la ba paré def coupe d'Afrique. yo y de finale aussi successif peut être ñi fi nek doon quart de finale bu ñu premier tour demain mais bi gis nañ stabilité équipe bi. Euh, deux ans euh, yor équipe bi euh, Sénégal bi septième participation ci coupe du monde quatrième fois ñu yam ci stade quart de finale lan blocage lan mo dess réellement pour peut-être ñu jàll dem ci carré d'as wala sax gagner mondial bi. waaw question boobu moy li ñuy wax rek euh, Sénégalais yi boobu ñu ñukay koy laaj mais ñu défé na la question boobu ku ko trouvé woon tey dañ lay jox équipe bi rek na la yobul ñu équipe bi mais bon qui cherche trouve on va continuer de de chercher xam nañ affaire bi du ay kon ni ma kay wax ay pion yu ñuy teg wala ay ki dañuy naxanteex mom rek di lig jéem a liggéey ci à long terme ñun africains des fois dañuy yakamti man personnellement j'ai joué avec équipe bi nga xamanté ne tey moom jël. Euh, coupe du monde 2015 nous sommes au Portugal même équipe boobu benn joueur moo si changé ou bien deux à peu près sinon jumeaux Martins ay Madjer une in euh, euh, comment dire, je Belchor Nous même groupe bi donc nous sommes ñoom dañuy liggéey long terme defe 2015 2019 4 ans nous ñu nekk di ensemble may sen trophée bi tay ñu dem jëli wat ke donc ñun aussi ñu ngi wër si demi-finale nan am patience rek mais du affaire bi lo xamantene da ngay ji rek tay mu sax malgré que nag nam yag na yagul mais gaay li ñu ci jitto bari na trop. wax nga lo am solo légui muy gunge état bi gungé fédération bi euh, bu ñuy taxaw touti def setlu ci bis socceuru Sénégal globalement fan la tollu ci walu infrastructure ci walu formation est-ce que condition yi performance yi soxla deug deug bu ngi fi. waaw defe naa foofu moom vraiment dañuy jël. Euh, ben chapeau bu mag jox ko Augustin parce que man ci fédération bi fii laa newoon nekk fi jour après bima ma def sama reconversion ñu indi ma ci ci ci coaching bi je pense que ne tay ma Yassine Mar que je salue au passage di ko di ko jaajëfal man mo nekkon sama professeur à l'INSEPS tay suma ma mu nek sama directeur technique óolu denk ma équipe bi Augustin tamit gis naa ne moom vraiment au niveau de Toubab Dialaw mo fay def ay infrastructures yu xamantene c'était pour le foot à 11 mais dafa imposer le Bichot que foog mu am fa terrain

def naa mën nañ mais bu ñu bëggee nag infrastructure bu bu tax ñuy wax il faut que ñu organiser benn coupe d' afrique bu ko defee ñu mën fi def benn stade moom day doon stade boo xamante ne moom la ñuy tuddee stade bi nga xamante ne sénégal ak moom pour diviger. ñu bëri dañuy fàtte ni coach jot nga nekk footballeur à 11 yaa laataa ngay dugg ci ci bi secours bi gis nañ tam ni ah, ginnaaw coaching bi ngay def am na beneen activité boo xam ne yaa ngi ciy yëngu est ce que mun nga ñu indil un peu ay ay leeral ci aspect yooyu coach Ngalé si la am.

man benn année là, ma doublé sama muy classe première et li ko foot à 11 bi la toppoon sax di dem ay test parents ne ma forcé mais comme je day mais du après par la suite test yi jotuma dem parce que problème administratif ma ñibbi si ma Sénégal bon si football bi mom man daa commencer commencé sama petite catégorie je fi génn nak ba équipe bi première division en 2004 après équipe bi fa je rek wat bi muy man si la dem port la bi nga xam sama collègue la moom mu di sedd ñu wax di ko félicité aussi au passage donc moom moom recruté ma dem port dafa une année après dem Wakam Wakam nag presque sama ñi ñi sax Wakam defe naa parce que Wakam moom defe ça sama vie fala parce que falaa footballé pendant sept ans Fala jële sax championnat bi joué naa fa aussi euh, la ligue euh, dem naa fa coupe des coupe des clubs ak ak US Wakaam defe naa falaay aussi en tant que professeur d'éducation physique c'est lycée bi foofu Fala nekk di di liggéey lycée Wakambi bi donc je pense que ne euh, bi ma Wakam après dama dem douane jóge douane après jarat RS Yoff wat euh, Wakam. defe naa fa la terminé après sama carrière foot à 11 quoi. kon xamna nak nag laaj bu mujj bi ta ñuy tàggatoo wax nga légui ci euh, mondial bi ci sa parcours waye itam résultat yu am solo yi nga xamné équipe nationale def na ko xam fi ci Afrique wala sur le plan mondial Donc sax pour le moment quart de finale lañu la lan prochaine étape bi compétition échéance yi nga xamné moy xal équipe nationale bi. waaw tout d'abord di wax na ne moom laa doon wax rek ne man démb rek bi may euh, xaw ma barki démb may def sama rapport maa ngi wax ne ne euh, sant yàlla la quoi boo nekkee si benn année boo xamante ne demoon nga ay ay compétition yu si nekkoon lu mën di juróomi compétition yàlla def ne si juróomi ñaari nga perte jël trois yi yii ñaari nga trois yi nga jël médaille door baneen bi nga jël deuxième baneen bi bon nga toog premier tour boo xamante ne yaa sel yaa sel jël deuxième si poule bi ba pare ñu ne benn mooy génn foofu changer règlement bi dafa naa sant yàlla je pense que pour moi, ligue bi est fi sénégalais vraiment ñu ngi apprécier bu baax qui euh, bi kanam kon li ñuy wax rek compétition rek na jour staff édition kanam 2020 donc presque trois mois pour la Ligue ligue le mois d'avril, donc je pense que ça tout yeneen après qualifié après africains tournoi voilà bu euh, coach équipe nationale du Sénégal beach soccer Ngal euh, ba Sénégal coupe du monde Paraguay jël sixième place au général euh, titre équipe bi fair play way nak wax itam lan moy ci équipe bi wax itam challenge yi nga nationale de beach soccer bi soccer discipline bo xamné mu ngi continuer di mu ngi développer wu ci Sénégal buñ ko gën soutenir avenir Nous beaucoup de satisfaction euh, comme nous l'avons déjà fait déjà sur le plan africain nous ñu leen di de di leen di leen